surtout euh, politique boo xam ne yow doo sànni xeer kenn ñemew la sànni xeer ndax euh, euh, sa maama tax donc kon kon finalement man man man daal ba léegi nii comprendre ma yow la ngay gañe ci politique bokk Mbacke. li ma la wax moo di bu dee bu dee bu dee li jëm ci wàllu naa mooy point bi nga njëkk. waaw meeting yeeg yooyu hmm. mais booy meeting. boo boo boo duggee ci boo duggee ci boo xoolee rek meeting d'ouverture campagne bi. waaw Mbacke Bawol. Hmm. keroog man maa fa wax. Hmm. te ba may wax. boo bëggee xam li ma wax la ma wax dama ne ko président daañu la sargal ngir li nga liggéey ci réew mi mm-hmm. lim bi la am mm-hmm. ne ko loolu ñu njëkk def mm-hmm. ñu àgg le 24 février ñu fal la suñu borom dimbali ma fal lañu nii laa ko wax donc dama mais mais mais kooku militant nga xam xal wala taalibe ngay waxantee boobu non militant man du ma du ma jaxase du ma jaxase su ma su su su ma duggee ci ci wàllu politique nekk su le champ politique am naa ay ay armes ay ngànnaay mhm. yu ma mën a jëfandikoo yu dul di utiliser ay taalibe mhm. maa ngi sant yàlla ci loolu mhm. ndax aussi bañ may jàngal ngir ma defar loolu moo tax ngir ma mën a conceptualiser loo xamante ne bii mën naa ko wax nit ñi man adressé wu à leur intellect ba ñu dégg li may wax nga xam ne n'importe quel autre sénégalais aurait pu leur dire ça foofu laay waxee hmm? parce que su ma doon wax ak taalibe yi écoutez du ma ñëw di lim ay bilan def nga lii def nga lii def nga lii def nga lii mhm. kooku mais loolu cohérent la ne mhm. ko nag gannaaw def nga def nga def nga lii ci diir bu gàtt bi le 24 février dañu lay fal mhm. kon noonu lay politique noonu lay mitigé boo demee boo boo demee nga xool ko ci YouTube bi. loolu il faut ma xool ko ci YouTube bi <laughs> loolu. voilà beneen man saa góor. donc loolu euh, deuxième. Euh, euh, beneen yaa nga bokk ci ak opposition bi. léegi opposition li ñu mooy ŋàññante li ñu xam màttante man chaque jour ma dégg waa Touba ñi dóor fii man mais mosuma dégg kenn osé. opposition yi nekk foofu mosoo dégg kenn osé dal dal attaqué sa attaqué loolu tamit sa maam moo tax. parce que parce que dama koy sant alhamdulilah. Mhm. Euh, waaye aussi dafa dafa am lu am solo. Mhm. Euh, li wax nga léegi baat bu baat bu am solo soo dégg ma génne baat bu ñaaw ci sama làmmiñ. Mhm. te ah, fii ak maa ngi ànd ak sama sago. fa su ma ko yéene def. loolu aussi mënut a ñàkk mu am lu def ci ñi nga xam ne ay nit lañ yor ay xel di xalaat. parce que politique du du xastante. politique du du du ngaññeenti. mais réew mi moo tax ma la. Mhm. ku mel ne man bu ci duggee daa war a am lu mu indi. Mhm. une nouvelle touche une mhm. nouvelle approche. ngir mu nekk exemple. bu dul loolu c'est pas la peine. tey jii ñu ma waroon a ŋaññee. mooy ma dugg ci politique di ko def ni ko ñëpp defee. kon ñu ne ah. kat c'est pas la peine. parce que parce que di ko ñëpp defee la koy defee. te te ko seqal ñoo ko dàq loola. mais li may def au moins. muy muy ànd ak yiw ànd ak yar. ànd ak teggin bind ma ne moom ñi ko dàq bëriwul ndax ci loolu lañ mën a taxaw mu te loolu aussi boobu laa namp gi Sëriñ Tuubaa donc te foofu la war a jëm ngir defar réew mi ndax lool aussi mooy li am solo mais man vraiment li ki des euh, ma même ngañ ñi aussi day am ngi dal sama kaw di ba sànni xeer ah mais am am parce que am ñoo ne ñoom noonu la ñuy gisee voilà mm. nit dina yebal ngir ñu koy def mm. mais mais mais mais koo xamante ne bii mm. mën naa fexe ba mu tontu ko benn bis mm-hmm. parce que jàpp naa ne loolu bokku ci kon ki koy def rek moom il se met d'emblée te bu yàggee rek nit ñi danañu atte mm-hmm. mais mais mais sëñ naa tamit ne beneen beneen nga xam ne fii sunu réew mi nit ñi euh, am dara pour am moo am weccet nii na ceeb beek am poste yu mel noonu moo tax gars yi da reyante fii capable na rey papa yaay yow nag euh, wax nga ko léegi sa maam euh, ak sa waajur li euh, euh, noppal nañ la ci loolu ak tamit sa méritu bopp na comme ni ma waxee rek bu weesoo euh, nonol yi am na tamit loo xam ne sa méritu bopp na boo ne nga tëdd sa kër taalibe ñu dina joxe àddiya waaye defoo ko kon bu li tax kon nit ñuy fii di dugg si politique mooy poste yeeg yooyu léegi gis naa ne nekk nekk nga ministre conseil a ànd parti ministre conseil est-ce que da ngay da nga am bureau da ngay dem palais wala yooyu am na bureau yooyu yëpp da ngay da ngay dem di di ay dossier yooyu yëpp. mais bien sûr bu ñu ma liggéey ko <laughs> buñ ma joxul aussi damay. mën naa saisir de n'importe quelle élection bi note jox ko après nag moom mooy xool xalaat ba ma ko jox. day lu mu cee parce que moom itam yàlla may na ko xereñ goo xamante ni lu koy wax lu ne dana dana xam. et puis il a des informations que moi je n'ai xataraay woo pour ñu jox la ko dañ la waaw da nga toog ñëw na la ministre voilà léegi yow dafa politique pour nekk maire parce que nee léegi sànq or an moo tax jaruma la kaa ci kaw hmm. nee la législative yi da nga a nekk maire nga hmm, ah, <laughs> nekk maire maire maire euh, euh, mais quand même ministre euh, suba par exemple président Macky Sall ministre conseil la def mais mënoon mënoon na mënoon jox portefeuille quand même nga nekk monsieur ministre de quelque chose li li li li am solo moo di ah. Euh, ànduma ak moom ngir ay poste te moom loolu xam na ko mm-hmm. parce que parce que yàlla moo nu boole mm-hmm. bi muy dugg tubaab mu jaar ci sunu kër mu Daaru Xuddoos mm-hmm. suñ mbàkk soxna moom moo ko fi dugal moo ko boole ak alaaji Moodu Mamoun Ñang bu yóbbu ko ci Serigne Saliou mu dem jëbbalu ci loolu yàggut kon loolu mooy li nga xamante ne bii moo moo indi rapprochement bi xañ na mu nekk aussi ni ku am cofeel ci njabootu Serigne Touba ku am cofale jabar Sëriñ Tuubaa donc moom moom ma woo ne ma dama bëgg nga jàppale ma wax ma ko ci wéet wax ma ko ci kanam mbooloo ma ne ko nag man li nga xamante ne bii moom mu yitteel mooy réew mi lépp lu ma doon def itam ngir participer ci développement réew mi laa ko doon def kon nag ku toll ne président de la république bu la mayee possibilité nga mën a liggéey réew mi kooku jàpp naa ne boo ko gantalee ça veut dire que ne réew mi ñoru la man noonu laa gisee keneen mën bu ko bu ko bu ko neexee musuma ko si teg benn condition ci lenn. Mm. ci jiital naa ko lis dans des conditions extrêmement difficiles musuma wax teg dara musuma wax mm. dara. yëf yi jàll ku nekk coow nangam ak nangam ma nekk ca la ma nekk parce que xamoon naa ne. Mm. lii ma nekk mooy li gën et j'étais convaincu que boobu moo gën ci Sénégal. ndax bir na ma ne bu nga ñëwutoon réew mi. en 2024 ba tey jii réew mi jaxasoo na. ñu nekk ci yoo xam ne kenn xamul lu mu doon. donc loolu conviction profonde et personnelle. bu ma amoon la. Mm-hmm. te gesoon naa ne aussi commencé na loo xamante ne bii aussi quand même en sept ans. bu ñu ko mayee mu mu mu nekkaat fii bu ñu yàlla dimbalee mën nañ mën nañ cee sori. donc loolu gëm-gëm la woon ci man. Mm-hmm. élection yi ba élection yi jàllee aussi damaa dem toog nekkaat sama activité. Mm-hmm. donc amul pression ku ne ñëw na fa ci kër ga Touba sëñ bi dañuy wax danga ma leen noo bu kenn wax parce que man wax lu ma kenn. wax lu ma kenn nekkuma ci yooyu disposition baa kuy wax ko ne aussi man na nga ma ci génne yooyu sama nekku ci mhm. lii itam damaa toog rek bu guddi ju woo ma ne ma kat nangam ak nangam ak nangam ñu mhm. rek la demee d'accord léegi euh, euh, sëñ bi euh, Touba président Macky Sall am fu ko mel na yow nga bokk fi nga bokk nga xam ne comme ni ma la waxee tey bu ñu doon bu doon militant ak taalibe yow boo way ci taalibe rek xam naa ragal naa ñëpp militant yi donc te président Macky Sall ba tey mënu fexe ba gagné Touba léegi man loolu dama xamul euh, lu ko waral xanaa yow sa rek buñ buñ buñ buñ buñ ko saani loon carte président Macky Sall dégg du question du du du question taalibe wax naa la du ay awut ay taalibe mm-hmm. <laughs> man new mu ci yow <laughs> voilà ne new mu ci yow jomm naa woo kenn ci ab taalibe naa kaay ci di te mosuma ko def itam jamais de la vie ñoo kay jàppale ma ngi taalibe gi doon non non ko ko baaxul moo mm-hmm. parce que amalgame lay indi te amal Gambie amul solo. bu yàggee ba naa jur yeneen. mais mais li am solo moo di ne jéego yi nga xamante ne bi ñu ngi koy saqi foofu. muy jéego yu wér. ah jéego yu wér yi am nañ près de soixante huit mille voix. yoo xamante ne bi mosu koo am ci dëkk ba au premier tour lañ ko am. donc li ñu li tax gaje wuñu moo di yaay un report massif de voix vers un seul candidat. mais mais mais bu amoon éclatement ñeneen ña fa nekkoon lañ jàppoon dañ ko am lu ñu ko amoon. kon mbir mi dana deme leneen mais ak aussi seen ñàkk juboo waa affaire yi nekk. Euh, wax naa ko ni démb politique. Hmm. amul fenn foo xam ne gis nga ni ngeen di juboo di hmm. ak di ànd. Hmm. donc loolu moom daanaka mëtt sax bëgg. ah euh, nit ñi danañ maslaa nii rek waaye waaye gi non non non voilà euh, li nga xam ne nag moo ci am solo aussi pour les élections présidentielles te loolu moo ñu may voye am mm-hmm. dañu amoon un leadership éclaté mm-hmm. et man aussi mm-hmm. ñu am mais boobu bu ñu kenn wala mu teg loxo kenn baa kii lañ fa am noonu luñ ko ko mën am parce que dina am am ko liggéey boo xam ne ña koy def léegi nag gañe moom mais teewul mais pourquoi nag waa population Touba ñoom ñu bëgg Ablaye Wade seen biir xol. loolu nag loolu nag moom. loolu loolu amu ci amuñ benn. ñenn ci waa Touba ñenn ci waa Touba mais Touba gépp ah, ñenn ci waa Touba mais. mais lu ëpp si waa Touba daal lu ëpp si ah, Touba moom lu ëpp si Touba. Mm, waaw moom daa gagné nag mooy majoritaire bi. mooy majoritaire non mais non mais non loolu loolu c'est c'est xam nga. Euh, dafa euh, dafa dafa nekk histoire bu yàgg. Mm-hmm. Ah, waaw d'abord création PDS. Mm-hmm. création PDS ay kilifa diine murit. ñu nekk à la base. notamment Gaynde Fatma. premier financement yi ma am aussi Ablaye du ma ko nettali. Mhm. yi mi ngi fi congrès yi mu doon def Kaolack. Mhm. am ay mbir yu si amoon. Mhm. Serigne Cheikh moo moo ko jox xaalis. fii ki Sicap gii à mu mu am aussi histoire boo xam ne am na ko ak kilifa di taalibe Serigne boo si amoon coono cofeel ab am lu ñu lu wér. ah mu yàgg gañe dëkk ba depuis 1993 mooy gañe foofu de. Mm-hmm. ah oui. président Abdou Diouf nekk na fi. nekk président Sénégal di gañe Sénégal gépp. terewul ma Abdoulaye di ko duma biir Touba. Mm-hmm. ci ci biir Touba villa waxuma àll bi ko wër. kon lu yàgg la. waaw eh, te lii fa président Macky Sall di am devant Abdoulaye Wade ñoo ko fi am bëriwut. Mm-hmm. plus de 30 pour cent. mu am ko fa dem ba koy déstabiliser wala ñu dem élection comme législative nga xam ne Abdoulaye di nekk na candidat ñëw Touba campagne. élection bi moom mu am 47 pour cent. majorité relative. nit ñi nit ñi dañu analyser les chiffres. mais ku jógee quatre vingt quatre vingt pour cent ba quarante sept pour cent. kooku ñu ngi lay ñu ngi lay yëngal. ñu ngi ñu xataal. ñu ngi lay bundu xataal mais nag c'est son fief ça aussi c'est la vérité. mais mais aussi tamit beneen beneen lecture bi mu tam mën nañu wax ne xëy na foofu du population seen bopp ñoom ñoom bëgg Ablaye Wade utal na sori na ak clivage religieux yi yu mel noonu. non non non du non du du du du du du question du question clivage religieux ak yu gënoon mm. parce que parce que parce que amul. Mm. ñoo xamante ne bii Ablaye Wade moo leen gën a nekk ay taalibe. te ñu ngi ci mm. biir yëf te te te lam fa am amuñu ko. Ah, donc c' est quelque chose de de particulier boo xam ne lu nekk la moom aussi xaj na peut être yàlla def vraiment mu mu nit ku baax. Ah, mérité na lu ne moom moo moo Ablaye Wade ah. li am solo rek moo di juba gi ñu nekk. na na continuer et que lii nga xam ne président def na ko ko. tey jii bari na ñoo xamante ne bii am na am na fu ñu nekkoon ndax daa am lu ñu leen gëmloo woon tey ban daal wax ne loolu jeex na. mais su ma dégg bu baax euh, euh, sëñ Cheikh Abdoul gaynde Gaïndé mhm. Fatma. Mhm. Euh, mën nga jàpp nga ni jubóo bi jubóo bu bees bi am président Macky Sall ak Abdoulaye Wade mën naa benn njeexital suba ci ay élection yi ñu dëgmal muy législative yeeg ñoom it seen locales yi. loolu sa sa d'abord élection yi kenn xamul kañ la. waaw kenn xamul kañ la. loolu tam jaaxaloo la yow. Euh, non parce que en fait li ko li ko sabab farata la ndax toog waxtaan. ba am consensus. sur le code électoral. ci sur le processus électoral. naka la ñuy demee élection. loolu moo war a jiitu sinon dañ fay dem moo y va avec des contentieux. te bu ñu fa génnee kenn du am li nga bëgg. kon li tax ñu taxaw élection yi dafay farata. kon nañu jël temps bi nga xam ne moom la dialogue bi war a jël. ku ci war a bokk nañu fexe ba nga bokk ci. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu toog waxtaan maintenant bu ñu waxtaanee luñ lépp luñ rek. loolu dafay daal di dagan mhm. su ko dee bu ñu demee élection benn contentieux mën na cee bañ a nekk mhm. mais fi ñu toll nii yow pour gën a matérialiser euh, sëñ bi jubóo entre euh, euh, ñaar ñi Ablaye Wade ak président Macky Sall xalaat nga comme ñu bëri lu ñu xalaat ne xëy na suba à l'issue de sa dialogue laa bu gouvernement di ñëw mën na cee tukkee c'est une possibilité. waaw te te loolu yëpp finalement. mais néew moom mooy am c'est une possibilité la la wax. c'est une possibilité voilà il faut que ça soit clair aussi. <laughs> mais la neen na sees tubaab bi nga ne président Macky bu ah, bu bu lëngoo ak Ablaye Wade ci ci ay ci joutes électorales yi ñu lëngoo mooy def benn liste yu mel noonu. waaw xam nga xam nga bu ñu bu ñu bu ñu teg yëf yi lu mu lu mu attudut. Mhm. wala bu ñu ko yóbbu foo xam ne àggu fa. Mhm. Euh, euh, bu ñu aussi sauté ay étapes. Mhm. parce que loolu aussi dafa juru yàq. bir na ma ne. li nga xam ne moom la Cheikh mun Mountakha bëgg ñun mboolem taalibe yi ñun ñun dañoo sëñ te bëgg leneen parce que ñun bu ñu amul bëgg mooy sëñ bi ñàkk feeñal ak bëggam waaye bu xasee feeñal bëgg moom ñun pare nañ ci moom mbir la sëñ bëgg lañu bëgg kon ñun taalibe yëpp fii la ñu nekk kon li nga xamante ne moom la Cheikh Mountakha bëgg te mu wax la léegi suñu borom dana def barke ba li mu bëgg suñu borom dana ko ko defal maintenant naka lay amee kenn lay ah, am sous quelle forme loolu moom man ci dëgg-dëgg xaw ma def météo non non non non parce que parce que télé bi damay dama xaw a ragal vaar bi tuuti waaw <laughs> vaar gis nga lii moo tax man la yow sëñ naan teg xam nga vaar <laughs> alors sëñ bi euh, ñi ñi ngi nag ci dernière minute émission bi euh, jatu ñaata ma dese cinq minutes cinq minutes voilà alors euh, sëñ bi président Macky Sall yaa ngi dégg ñu bëri ñi ngi wax ci affaire mandat woon bi Euh, moom euh, bële kenn déggu ko officiellement mu wax ci lu leer waaye ñi ko jege euh, ak tamit li nga xam ne moom la constitutionnaliste yi en tout cas jàpp muy leer mooy bii mooy dernier mandat mais ba tey am na ñu jàpp ne mën na lijjanti troisième mandat ko yow ci sa xalaat ak li nga xam ci président Macky Sall d'abord ndax nangu ne bii mooy dernier mandat ak i tamit jàpp nga ni war naa mën a forcer pour troisième mandat. xam nga droit dafa am. droit man ma nangu wala yow nga nangu amul solo li am solo mooy li droit bi wax droit bi li wax moom ministre droit yi ñoom ñoo ñu koy leeral. damay damay damay damay dégg nit di wax parfois ñun interroge ci mbedd mi wax ci lislaam ba caag mu ne man nii laa ko gisee. mu ne ko sëñ yaa ngi juum ni ko gise amul solo. waaw <laughs> ah, juum nga juum nga li li li li am solo mooy. li li charia wax. le droit c'est le droit mm-hmm. donc voilà c'est c'est c'est son sentiment euh, amul kii impersonnel et tout donc kon foog naa ne man sama xalaat amul solo amul njëriñ mm-hmm. mais li nga xam ne xam naa ko ak li nga xam ne aussi euh, xam naa ko ci moom mooy amul benn yéene bu dul jëmal réew ci kanam mm-hmm. te programme bi mu tëral li mu jot a def bu ñu bay bàyyee préjugé défavorable yi ak itam di wax loo xamante ne bii dañuy dañu bëgg a jaxase xel nit ñi ba déplacé débat bi foo xam ne nekku fa ndax tey débat fan la nekk moo di ñun ñëpp ñu takku réew mi naka lañ koy liggéey mm-hmm. ba suñu ressources yi nga xamante ne bii tey ji am na fi mm-hmm. ñu seet loolu naka lañ koy sécuriser ba nga xamante ne bii réew mi dana ci dana ci mm-hmm. suñu démocratie bi nga xamante ne bii aussi alhamdulilah mi ngi may jàmm nit ñi di dund ci jàmm di xajoo waaso yeeg lépp naka lañ koy gën a consolider xam nga donc ñu fexe ba taxawaayu Sénégal naka lay gën a ci Afrique taxawaay Sénégal ndax lay gën a dëgëre ci ci àdduna si ñu fexe ba hôpitaux yi bari ci réew mi ñu fexe ba jàngukaay yi bari ci réew mi hmm. xam nga ñu fexe ba assainissement yi ndox mi ndox mi nga taati fenn hmm. ah, ñu fexe ba ndaw ñi xëy di di di am liggéey hmm. loolu mooy débat bi am solo te malheureusement jamais ñu dem ci boobu débat débat bu ñu tijji bu ñu bu boobu tëjee rek ñu tijji beneen boo xamante ne bi c'est aussi futile que ba nga xam ne moo jàlloon donc vraiment li am solo te te li amoon solo élection jàll na le président a gagné haut la main avec plus de 58 pour cent des suffrages. tey jii ni ñëpp takku ñu ànd liggéey réew. monsieur Mbène daw nga ci moom bu ñu àggee bu ñu àggee. ma daw nga ci kan ci tontu bi daw nga ko. non daw man daw yow tam. Ah, mais mais mandat bi la man ma daw dama ñëw fii sa kanam. sëñu ma ko sax mais quand même gis nga ne maa ngi maa ngi la benn benn napp nabbee yooyu foofu napp nabbee di kii yooyu sa sa da nga da nga da wax li la yitteel <laughs> ah donc yéen yéen yéen yéen li nga yitteel di hmm. débat nga xamante ne day indi coow créer polémique ah. man aussi li ma yitteel ah. mooy li nga xam ne mooy defar réew mi man aussi foofu laal tontu mais mais léegi troisième mandat yow sax laat euh, président Macky Sall nee naa sama xalaat amul njëriñ important non mais c'est vrai c'est pas ça c'est du droit ma xalaat li xam nga et puis li yàq lu bari. mooy ñu xamul. ñooy wax ah, mais exactement loolu mooy yàq. Ah. bu ñu bayee les spécialistes du droit. Mm. se prononcer sur la question. mais ñoom ñoom nee ñu moom bi ma dañee mandat bi. Hmm? ñoom ñëpp loolu la ñuy wax. ñoom ñëpp loolu la ñuy wax. man waxuma ne yow yaay wax <laughs> dama lay wax rek waxuma yow yaay wax yow nee nga ñoom ah. <laughs> sëñ bi daal sëñ bi daal xam naa man je comprends loolu pourquoi ñu dénk la commission communication. non non dara <laughs> communication da ngay def loolu moom du ma tasaare ñaari sëñ bi nga ci yeneen zaay la yëfu doog dara rek. non Iba xam nga man xaw ma la laa ragal ah. yéen invité leen dafa metti loolu bés la da ngay xool nànk da ngay waxee du tu marches des heures ak yooyu parce que sa taalibe yi laa ba ñu ñu defan deg man waaw <laughs> ah, li moo moo tax may may may sellal may sellal kàddu bi léegi ma ñëw ci beneen mhm. mooy